ba ci suba sa mu nuyuwaat ko mu ko ah ba tey nee nañu ne da nga xaar te suba sa di àllarba mu nuyuwaat ko mu ah ba tey nee nañu da nga xaar